alxames ci guddi laa euh, laa yeewu bi ma yeewoo ji fajar fekk ñu tegle ay mool yi dajj kii bi kànnaar yi jiital sama juróom benn xar ak benn mbote yëpp ay kuy la ñu di ko topp ba gis ko ci àll bi ñu nëbb ko fa ñu indi ko tey àll àllarba euh, jeudi vendredi samedi dimanche tey di di ma yeewuwaat la même chose ñu jëlaat ko juróom benni kuy ak benn mbote mu ndaw dunu ay raas waaye xar yu baax lanu bu ci nekk bu ma ci fayoon benn cent mille francs damay lànk saa bu ma xëyee maa ngi xooj maa ngi ci xar yi samay dëkkandoo yi yëpp xam nan ko ma jël sama doole ak sama lépp def ci lépp bañ di sàcc ak duggul ci lu sama yoon nekkul waaw ma nekk ci di ci daan sama doole tey jotaguma dem police waaye man damay bëgg a sonn ci police ji boo bëggee dégg dëgg ndaxte du sa tey ji la quatrième fois boo xamante ni ñu ngi may sàcc sa ñëw police bu njëkk ba ñëw nañ ba fii ban demee ñu jàpp euh, euh, gardien bi fi nekkoon trois jours ñu bàyyee ko di nu vaillé vient loo barki bi ma demee xanaa ku nu sàcc ci jour bi sax di ko interroger wala dara waaye dañ ne ma waaye demal ba suba far yàlla may topp sama yëf ba gis ko tey jii na jotaguma dem fii ma la koy waxee nii ci heure bi yàgg na fee am ah muy lu nekk lu tiis lu metti waaye nag toujours day xaw a wàññeeku ndaxte maa ngi koy dund di ko bokk nag xar wi ak samay dëkkandoo ah yi nga xamante ni saa bu ma amee lu neex ñoo man saa bu ma amee lu naqari ñoo man waaw ndaxte fekk nga ma fii lu dul samay dëkkandoo gisuma leen fi ma leen ciy sant di leen gërëm. à chaque fois li may jooyloo du question de sama alal lan jël mais néew doole ji ñuy sentir ci man tamay nekk jigéen. ba pare ñu xamante ne ñun ñu dëkk ci dëkk bi te lépp insécurité moo ko waral ndaxte ci lëndëm la ñuy dund jooy nanu fu ne ah lëndëm moo fi nekk ku sàcc day neex a raw ah, guddi ak jigéen dem nañ ci autorité yi fu nekk ñu fay jooy courant bi ak ndox jigéen ñi fi nekk lépp yaa ngi nii saa boo leen xëyee gis leen yor nañu yére yu baax yu nu mën a sol yor ay lu nu mën a takk yor lépp mais duñ ko tal ñoo ngi ci euh, euh, ci dëkk bi di root di kii sonn ba bëgg a dee. ñoo ngi bokk ci kaw sara après école mbaar ñoom ñun ñii fa la ñu dëkk waaw. ma ne la ñëpp lañ gis ndaxte ku ci nekk fa nga am fa nga war a mën a dëkk fa nga mën a kii ndate tey jii ku naan fii àll la sa baay ba muy jënd fa mu jënd boobu àll la ku nekk dangay ngay toog fenn liggéey fa sa njaboot ñëw. fekk loolu nga liggéey waaw ndaxte yomb na trop tey jii ñu naan fii àll lan wala leneen ak leneen àll gii ñu dëkk jom moo tax ñu dajale suñuy dërëm ak sunu lépp bañ ku ne suñu njaboot bañ ku nu ne ñuy daan suñuy doole di def lu ne am suñu kër pour ëllëg suñu njaboot mën kii vivre wala leneen ak leneen. tey jii jël nañu li ci biti lépp. tey ci biir la ñu njëkke woon ndaxte fii lan ma njëkk sàcc jël fi samay télévision samay daraay jëkkër samay lépp te ka ko def daf maa xam ah daf maa xam mais police toujours boo demee lu ñuy def croiser les bras policier yi bu ñu leen indi ñun ñoo leen fi teg pour sunu kaaraange ñu war di dugg ci ruq yi nga xamante ne xam nga nekk policier ngeen nekk ci biir ville bi ville bi kañ jërta surveiller fii lëndëm moom la lañ war di surveiller ñu nekk ay citoyen di jël suñuy carte di votel nguur gi di def lu ne ah ñu war ñoo jox suñu droit ak suñu gëdd mais joxuñu ko ñun na sonn nanu na nanu man bu ma tëddee guddi du nelaw parce que damaa xamante ni ki ñëw di xaawi sa sutura ndate doomu aadama foo nekk di nga def yëfu doomu aadama mooy liggéey bëgg sa teraanga man lu ma am ñu fuqar ñi ko fi mu ne mii may wax ak yow buñ la sàccee tey damaa découragé demuma ci sëriñ demuma police demuma fenn damaa toog bokk ak samay euh, kii di jooy ñu di ma defal ah parce que damaa xamante ni li nu bëgg am nan ko parce que chaque fois ñu ngi may raas ku raas bu amatoo sëriñ boo dem dina la laaj dërëm ah police boo fa demee bala ngaa njëkk a wax loo wax. Ah, kii bi ñu lay kiyal di nga fay 1000 francs ah léegi nag dama lay wax leen boo fanaanoo la nga yore ko néew ñu di ko jël yow est-ce que fooy dem ah, te yoroo loo joxe doo toog suñuy ndey fa nu dëkkoon ay àll la woon dañ faa ne nit ñi di leen fa fekk ba nu nekk ci dëkk man dawuma daayuma dawuma daama bis bu ma dee nag ñu xam ne jigéen ju jàmbaara dee na bis bu ma dee ñu xam ne gor dee na waaye duma daw duma ma daay